wàllu racisme ci match Maroc ak kii di Congo non xanaa loolu waru cee am de loolu bu nar a cee am ki ko def xanaa dañ koy génnee Afrique kooku amul place Coupe d'Afrique match Congo beeg kii bi déedéet xanaa sañu loolu salaam gars yi bëgg naa leen nuyu ko ci nekk seen tur ak seen sant kookee di Memba di capitaine coach Euh, mën naa di capitaine Congo tey dafa amoon quelques altercations ak kooku di coach Maroc bi coow li jub ba joueur marocain yeeg joueur congolais di dalanteeg ñoom seen fin match bi gars lu xew am na ñu révélé que ni mbirum racisme la dafa am kàddu yoo xam ne coach bi da ko génne leeral ko dinaa ci ñëw kooku di Mbemba moom moo génn ba wax nee na moom yàlla dina faj lépp. gis na dégg na te moom dégg na coach bi dégg na am na vidéo yu du ko wane mais kàddu bi génnee wax ko kooku même ba nee na yaakaarewu ko woon sax ci coach bi dina ko génnee surtout ici en Afrique nee na loolu fogeewu ko woon te am na lu ko métti trop mais dina ko bàyyi ak yàlla mu ngi noonu mu doon kàddu yoo xam ne nee na du ko sax génn du ko mas a génne ci àdduna mais kàddu yu ñaaw la yoo xam ne coach bi génnee coach Maroc bi génnee na ko am na ñu bëri nag nee nañ coach bi dafa génnee kàddu raciste jëmale ko ci kookee di Mbemba ci noir boobee nga xam ne moo nekk foofee ca euh, mën naa ni euh, Congo man nag ñu bëri dañ ma doon wax ci naar yi muy Maroc ak kum ci mënti doon bu leen gëm kenn naar yëpp a yam amuñu xarit ay Sénégal Maroc dañoo bëggante daanu ma koon comprendre nag mais finalement ci Coupe d'Afrique maa ngi comprendre yu bëree bëri yi ma gars yi doon wax ci commentaire yeeg yooyu yëpp maa ngi koy doog a comprendre naar yi vraiment ñu ci bëri ah dañ lay wan jikko yoo xam ne nii mooy loolu buñ meree rek génnee la loo xam ne nii saa yi da nga mujjee sax xeeb même baa neen dafa mujjee xeeb coach bi am na lu ko métti trop ci kàddu yi nga xam ne coach bi jot na ko génnee jox ko ñu bëri nag nee nañ wàllu kàddu racisme la lañ ko kii am na benn moment boo xam ne sax mu ngi koy tàllal di dóor der bu bi di ko di ko insister mu doon image yoo xam ne gars yi rek ko mujjee woon dagg quoi en tout cas c' triste pour l' Afrique bu dee gis ne yu mel noonu c' est malheureux da ngeen di tas ñoom naa ne dañoo fan ne ñoo fi gën quoi ma ngeen xaar ci commentaire la ngeen ko gisee jàmm ci yéen. n'est pas à sa place habituelle. Ils ont volé le drapeau de l'air au Bolito. <laughs> En attendant que... Now for

non mu ngi nii nii Seexu boo ko si Seexu boo ko si génnal. yes. C'est bon les gars jàmbaar dugalal photo bi dugalal photo bi am nañu kese dugal on est vers kër waay waaw gaar gay mel ni no a ñëw dugal ci yaxu de bu tàggee la mu dugg bàyyi la mu dugg laay yow rek laay topp laay di wax mais waa ji tàng na mais waa ji tàng na wala na e police e kerpa e kerpa s'il te plaît s'il te plaît Ñaanco

Eh, Abdou. Eh, Seexu boo ko si Seexu boo ko si génnal. Yes. 1 les gars jambaar dugalal photo bi dugalal photo bi waaw ñun kese est-ce que la ñu dugal wala le banqueur waay waaw gérard gay mel na mo prix waay mo recommandé lan teel a ñëw waaw eh eh, eh bu dugal Cheikhou de bu tàggee Cheikhou de dafa perte ah, bàyyi la mu dugg bàyyi la mu dugg ah. 2010. dégguma 2010. léegi kon benn crépé la ñuy jëkk a dégg à part avant yow. <laughs> non non Sa Thiès moom indi fii mais Amadou moo doon mais dafa dafa dafa dafa dafa naan tànk mu ngi ñëw waaw waaw maa ngi xool xam xaal situation bi ba xam euh, comment dirais-je damay dem fële ou pas wala ba xam damay dem fële bu may demul fële ma def la suñu avant rek